képp kuy gor képp kuy gor te man ko te man ko duuloo alaaji bu nekk ca minan duuloo alaaji bu nekk minan nga reende xaaf nga reende xaaf tabaskee ko tabaskee ko muy sunna si yonent yàlla ibrahim muy sunna si yonent yàlla ibrahim yonent yàlla muhammad dundal ko sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi dundal ko nag yonentu yàlla Ibrahim. yonentu yàlla Ibrahim. yàlla daf koo digaloon. yàlla daf koo digaloon. na rendi doomam. ne rendil sa doom. Ibrahima dund na ba am téeméeri at ak ñaar fukki mos da am doom. Ibrahima dund na ba am téeméeri at ak ñaar fukki at mos doom. yàlla may ko doom. yàlla sax koo may doom. muy Ismaïla. muy Ismaïl. ba doom ji jógee ba toll ci fukki at ak ñett. ba doom ji jógee ba toll ci fukki at ak ñett. fi doom li fi nit di soppe doomam. fi nit di bëggee doom jur jur. yàlla na ko rendi ko. yàlla na ko rendi na sa doom jooju. mu daal di nangu. Ibrahim daal nangu. la ko yàlla wax. la ko yàlla digal. ñëw ci xale bi di ko fa gaaral. ñëw ci xale bi di ko gaaral digle li jógee ci yàlla. mu ne ko defal li la sa borom digal man danaa da nga ma fekk ma bokk ci muñ ko dee. xale bi déggoo defal li la sa borom digal man nii da nga fekk ma bokk ca ñu muñ

دیکھو ابراہیم گندگی دیکھو kam xaaf. <coughs> sa doom ji nag jotee naa ko xaas. mu wàcce xaaf mu jógee asamaan. mu wàcce xaaf mu baxee ko asamaan. xaaf ma xaabil jaamu woon yàlla ca tangi Adama. xaaf bi nga xam ne moom la xaabil jaamu woon yàlla ca tangi maam Adama. ñu yëkkati ko yóbbu ko asamaan. ñu yëkkati ko yóbbu ko asamaan. fekk boobu ba tey ma nga ñu di ko yaxal ci aljanna. fekk xar booba ba tey ma nga xal janna ñu di ko yaxal. moom la ñu wàccee. xar mooma nag moom lañ wàcce keroog. jox Ibrahima na ko rendi. jotee ko Ismaïl ko Ibrahima ne ko rendi ko. mu rendi ko. Ibrahima wurus la woon. wurus la weya wurus la woon. wurus la woon. wurus wu jógee aljanna la waaw. wurus it képp wu jógee aljanna la du ngeen xam. yooyu nag mu ngi ci kaaba gi ba bu yàggul. béjjën yooyu nag ci kaaba gi lañ ko defee defoon ba bu yàggul rek. <coughs> bés boobu ñu rendi xaaf mi ñu jotee Ismaïl na. bés boobu ñu rendee xaaf mi jotee Ismaïl. mooy bésab tey bii. mooy bésab tey bii. yonent bi ne ne Fatimata. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na Fatimata doomam. ne ko demal rendi sa xar. ne ko demal rendi sa xar. sa sunna si bàyyi sa sunna si bàyyi Ibrahima. sa sunna si bàyyi sa sunna si bàyyi Ibrahima. bés ni tey daal. bés ni tey daal. ku mën a amam xaaf. ku mën a amam xaaf. tabaski war na la. tabaski war na wuute nañ ci ndax nit dana leb pour tabaskeem déet wuute nañ ci ndax nit mën naa leb tabaskeem déet liñ gën a dëgëral mooy bu bu lebee am lum tabaskee booy mën naa leb liñ gën a dëgëral day bu fekkee lebee am lum tabaskee te mën koo fay war naa leb نگ ٹپ نگ ٹپ ہر ٹپ ٹپ نہ اپنے tabaski nag moom. yàpp wu neex lañ ca taamu. yàpp wu neex rek lañ ca taamu. <clears throat> moo tax ba ñu wute. looloo tax ñoom ñaar ñooñu ñu wute. bisu xeet. bésam xeet. yéen a ngi génn leen kër yi. yéen a ngi tudd wa sallam nee na génn ci kër yi. ndax yàlla amut barab. ndax yàlla amut barab dëgg. waaye bés bi tey dana wàcc. waaye bés bi tey dana wàcc. ba ci jaww ji. ba ci jaww ji. ba ci jaww ji. muy yur lu ñuy dem ci julleekaay. ñuy dem ci julleekaay yi. کیا مہربانی